di yeesal suñu njëbbal ak suñu kóolute ci xaadimi rasuli radiallahu anhu noo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di baal xaq ñëpp te di leen baal xaq di ñaanal Cheikh Mouhamadul borom yàggal ko fi te dëgëral ko ba li mu naan liggéeyal Serigne yëpp mu defee ko nu kawe njortam naka noonu itam nañ koy ñaanal Cheikh Abul Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil waaye itam di ko ñaanal suñu woy wayjur Cheikh Abdoul Xaadir Mbacké jii nii ak njabootu sëñ Modou yëpp di ko ñaanal itam sëriñ Modou njaay mi toog jotaayu sëriñ Aliou Ndiaye ak njabootu sëñ Ndiaye gi di yëpp di nuyu bu baax itam suñu kilifa yi toog ci jataay gi di ci jiital Cheikh Mahamadul Mourtala ibnu Cheikh Mahamadul Moustapha Fadil ak Cheikh Mahamadul Basir ak seen rakk yi ñu bokkal jataay bi yëpp muy góor ak jigéen ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di jégalu taxawaay bu baax a baax dellu di feddali cant rek a Mouhamadou Mourtada bi ñu tàmbalee yu mel nii ba léegi mi ñuy gunge bu baax a baax ba tax na ci ak gungeem ca tàmbali ba ci la ñu ñemee ba agsi fii ñu agsi tey yàlla ñu ko yàlla sàmmal bu baax a baax di jot jottali Cheikh Mouhamadou Mourtada ngir mu jottali ñu sëriñ jiini ak njabootu sëñ Modou gépp di leen xamal ne ñoo ngi feddali suñu bi ci ñoom te di leen xamal ne fu ñu nekk ñoo ñu fa bàyyi. fu ñu mën a nekk itam seen ndigal lañ fay déglu di ñaanal bu baax sëriñ Modou Bousso Dieng ak sëriñ Aliou Ndiaye suñ boroom dolli leen njëggal ak yërmande te taasuñ seen barke waaw sëñ sëñ Karim sëñ El Hadj day sàpp ni ñu ngi jégalu ne dañoo fàtte ni waa kër sëñ Malick Bassine si ak sëñ Mor Khary si dañoo yendu ci kër Sëriñ Aliou ànd ak ñoom def délégation bu am solo kenn desul ci yéen ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ñaan bu baax Cheikh Mamadou Sow Fadil ak Sëriñ Aliou suñ borom doon di leen jéggal ak yërmande seen barke Sëriñ Aliou Ndiaye nag du ma ci ndax matuma ci moom seere xanaa rek di xamal Sëriñ Modou Ndiaye ne ko daayira lu Assir am nañu mbégte lool ci yëg gi ak taxawaay bi ak coono yi lépp gis nañ ko bis ba ñu leen xamalee ne sëriñ Aliou lañ jagleele bis bi kenn ci njabootu sëriñ Aliou noppalatut kon nag loolu gis nañ ko bu baax te lépp ngeen defee ko ci kilifteefu sëriñ Modou Ndiaye yàlla leen yàlla fay te defal leen ngërëm ak fa jugaajoo xam naa ni ñu ko waxee rek comme waxtu yi dafa xat dañuy jëkkanteeg moom bala ñuy dugg ci message bi nga xam ne daayira bi daayira bi baaxoo na ko jàllale ñu lim tuuti ci ay tur yoo xam ne dañoo yàgg ànd ak ñun ci liggéey bii ñuy def di ko di ko liggéeyal Serigne Fadilou kañu cay jiital nag mooy suñu partenaire bee toog di suñu maam ñu soxna Awa Gadiaga Baye Fallou Serigne Modou yaakaar naa kenn du ko présenté ci daayira bi ak lu mu ñu taxawoo ak lu mu ñuy defal kon soxna si ñu ngi lay ñaanal li def nga day teg ngërëmu Cheikh Moussa Fadilou waaye itam di gërëm bu baax Serigne Modou am moom it di ma ko wax rek ci partenaire yi la bokk dëkk ba ñu tàmbalee ba léegi ak Serigne Bassirou Diop Dakar waaye itam di berndeel di beral cant sëriñ Bassirou moom Serigne Khadim aw moom it a ngi fu ñuy yëngale lu mel nii moo fi njëkk ci ñi fi yónnee ay teraanga ak i ñaan ak wax yu rafet ñu ko sant bu baax a baax di gërëm di gërëm di beral cant itam suñu wayjur Serigne Fallou Mbacké Serigne Gass Kaltoum li ëpp solo li ëpp solo ci bis bi nga xam ne xañ na moom la ko suñu borom jagleel muy ay kaamil jàngal na ci sëriñ Modou lu mat 82 juróom-ñett fukki kaamil ak ñaar jàngal na ko sëriñ Modou def ko addiya keroog bañ fa demee dane ñëw gi ngeen fi ñëw tawfeex la ci mam ndax maa ngi toll ci sama juróom fukki at te sëriñ Modou moo ma joxoon aw tur maanaam maa ngi jégalu ci gàtt waaye moo ma tudd ngeen ñëw di ma wax ab bisam ma toll ak juróom fukki at kon dinaa ko jàngal juróom fukki kaamil def ko addiya bañ demee ba ca ginnaaw suba la ma woowaat ne ma la ma doon def de yéen a ji gën naa yokk tudd ay mbokk ak faneen fu mu woote ngir ñu jàng ko ndax yéen a ci am kon nag ñu ngi koy jottali ñëpp di ko jottali Cheikh Mamadou Mourtada Cheikh Mamadou Bachir ñu jàllale ko gërëm bu baax itam société bi ñuy wax pënc ci njiital ku ñu wax Baye Talla Mbow di taalibe Serigne Aliou Ndiaye Guédé indi na fi ay teraanga yu bare bare bare bare ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal barke ci ab liggéeyam di beral cant spécial nag suñu waajur wi ànd ak ñun guddeeg bëccëg muy sëriñ Modou Khari jàmbaari Cheikh Moussa Fall la joo xam ne du sonn du tàyyi foo ko fekk mi ngi dox dox ba ñàkk lépp ngi jëm Cheikh Moussa Fall sët yëpp ñu ngi lay sant sant goo xam ne seeni làmmiñ lott na ci tudd ko turandoo sëñ Modou yi itam ñu ngi leen sant bu baax ci seen taxawaay ak dongoy tarbiya yi waaye itam soxna sëriñ Mamour mu sonaaw ga jega taxaw na bu baax a baax ci jàpp ndal yi bare bare ci daayira bi ñu ko sant di ko gërëm di sant sëriñ Alaaji Njaay ñu gën koo xam si la jaay programme moom suñ partenaire la moo ñu bokk bis bi Serigne Sam Bousso mi itam suñu xarit ñu ngi koy beral cant bu baax a baax di lu kaddu yi tam bi traité na ko ci xam-xam akub dal akub tey li ñuy sàkkoon ci yow lépp am na ci satisfaction totale yàlla na ngeen ci am ngërëmu Serigne bi waaw naka noonu itam la ñuy sante monsieur le maire Abdoulahat Ka yónnee na fi ay teraanga ñu ngi koy sant di ko gërëm kon xam naa dañuy dëkkanteeg waxtu bi rek jottali message bu daayira bi comme ni ñu ko baaxoo defee di sant yàlla bu baax subhanahu wa message bi nag ñetti pàcc lay doon ci lu gaaw insha allah taala ba ci njëkk mooy ñu ngi fàttali kilifa yi diine yi seen rôle bi leen yàlla féetale te booba mooy teg nit ñi ci siraatul mustaqim ak di leen wax dëgg lu mu metti metti loolu ñu ngi koy fàttali ñi ñu ko war a fàttali ni ko suñ borom waxee rek kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkar nit nag yoon wi gën gën a xereñ mu def li nga koy digal mooy li nga koy digal day gis nga nekk ca waaye itam li nga koy teree day gis nga di ko moytu sa kem kàttan te a boole sa bopp ci ñi suñ borom naan atamuruna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaaba afala taaqiluun sëgg ci noppi nit ñi di leen wax jaamu leen yàlla jub leen taqoo leen ak makaarimul axlaax te loola nekkoo ci ci dara loola nag wax dëgg yàlla day am contradiction mu mel ne day mel ne rek benn xista buñ ci nett li bu gaaw soxna soo xam ne dafa baaxoon lool yiw lool di jàngal ay góor ak ay jigéen di leen jox ay leçon waaye dëkkal na ci noppi nit ñi bés bu set bañ tànqal leen ne leen dee leen bàyyi góor ñi ñuy takk ñeenti soxna ndax lislaam leen ko may ba ñëpp dégg ko ba seen nopp booy ca bu set mu leen ko wax ci ak sellam ak maandoom waaye bis ñëw ci xale yu jigéen yi mu doon jàngal am ku ci mat a dem kër ñëw ba ci moom ne ko fi ne da ñeme na laa wax li xew ndax sa baax gi ak li ngay woote bu ma la waxee li xew lu am benn jafe-jafe mu ne ko bismillah mu ne ko sa boroom kër de yàlla def naan bu yàgg ba léegi maa nekkut ñaareelam waaye dañ la ko nëbb moom ci boppam moom ustaasa ba mu daanu xam bi mu daanoo xam dem ba ximmiliku xale bu jigéen bi ñëwaat ci moom ne xaw ma sa borom kër siqu ma moom dara xaw ma fu mu dëkk waaye damaa mos leer ne li ngay digle nekkoo ci kon nag dee leen ñu wax farata te di mu digal ci li ngeen di nekk loolu la waykat bi di wax ne laa tanha an xuluqin wa tatiya mithlahu aarun alayka ida faalta azima bët bu set nga nekk ci rajo yi di waaraate di nekk ci bâche yi di wax te fu ñu la fekk la ñu déglu dara safaan ba ngay def loolu it jar naa bàyyi xel bu baax maa ngi koy fàttali bu baax ni ma ko jaral ni ma ko war a fàttali di jégalu baax a baax itam ñaareelu pàcc bi mooy ci gaaw rek bi mi ngi naqarlu di alerte itam li nga xam ne moo jamono jii te képp kuy gor war koo seexlu loola nag mooy li ñuy tudde ay lobby li ñuy tudde ay lobby nga xam ne dañ ko daan dégg rek te mu gane suñu nax fees dell ci ëtti kër diine yi waaye itam fees dell ci ëtti politique yi moom lobby moomu lobby tax na lépp lu waroon a rafet mi ngi ñaaw bari na ci dëkk bi loolu itam nag waaye lobby tax na li waroon a jàkk lépp mi ngi jàng te dara la waral lu ko dul intérêt personnel te it nag jullit bu nekk ak gor su nekk war ngaa seexlu alal joo xam ne santage moo la ko may waaye war ngaa seexlu alal joo xam ne itam taqalay bokk taqalay diggante moo tax nga am ko itam war ngaa seexlu alal joo xam ne yàq sa derub nawle moo la ko may te lépp ngir dund rek nit ku ne war ngaa seetaat sa bopp ni ngay dunde ak li nga am dangaa saaga nit xas nit jëw nit ngir am ko kenn ku nekk war ngaa seetaat bopp te jombale ko sa bopp su ko defee kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax loolu sax tax tax na loolu sax tax na ñu baree bare baree bari bari na ci sax ñuy tudd ay doomi soxna boo leen saamoon ca marché ba tey di leen jaay amatuñ benn valeur commerciale ndax li ñu amoon ci dignité am ko ci personnalité jaay nañ ko ci saaga nit jaay nañ ko ci xas nit bañ fay leen njëgg bañ lekk ko bu bari bu yàgg yàgg yàgg karkaas rek moo ko des ñi ngi dox ci mbedd mi nag bari lool kon nag loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax su loolu weesoo itam ñuy fàttali mbir moo xam ne ñor nañu lool ñu jëmale ko ci presse bi ngir yàlla yéen presse bi yéen a ngi jàkkaarloo man di ma déglu su ngeen amatee xibaar bu jëm ci wàllu Touba te jëmut ci sëriñ bi jëmut ci wàllu diine nga xam ne ku dëkk Touba rek moo am lu mu def lool sax mën naa ba dee dëppoo njàngale seen Touba bu ngeen koy yëglee bu leen jël photo bu jumaa ji ne ko ci dajj daat bind urgent dinañ alerte nag wax ko waxaat ko ci tekk ak teey ci non violence waaye itam nag buñ continuer di ko def dinañ ca ber ay mbooloo feet maanaam def ci ay mbooloo yoo xam ne dinañ ko saafara bala ñuy àgg ca loola nag dañ koy wax ci non violence ci ak labirinte kon na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax xool li murid yi gën a fonk muy jumaa ji symbole bi gën a fort ci ñun ngay wax kaawu viol wala ku rey nit jël jumaay Tuubaa teg ko ne ko fàng ci kaw loolu ak yabate la ko bàyyi xel bu baax a baax di di leen bàyyiloo xel itam yéen presse bi fu ab journaliste journaliste waxee ne la éthique ak déontologie yéen ñëpp yéen a ngi koy wax ba bu set moo ne itam day éthique ak déontologie bu ngeen ko bàyyi woon xel da ngeen gën mën a contribuer ci ni ñuy conserver la cohésion sociale ak la cohabitation pacifique bi nga xam ne dañ cee xam ne Sénégal kon nag loolu bàyyi leen ko xel bu baax a baax te ngeen ñu ngi leen ci sarxu di leen ko bu baax a baax te mbokk yi journaliste yi ba tey toxal xibaar bu ñaaw yàlla ci boppam moo ko njëkk a tere ba nga xamee ne jiiñ nañ sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha wax ju bon jooju ñu ko jiiñoon du ma ci jaarat li yàlla wax tar na lool rëy lool mooy inna alladina yuhibbuna an tashia alfaxisatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalamu wa antum la taalamun ñi nga xam ne yàkkamte nañ toxal xibaar bu ñaaw buy yàqu dara wala buy détruire dundu doomu adama boo xam ne dafa am njaboot ñooñu la suñu borom mu ngi leen di beral mbugal moo xam ne dinañ leen mbugal ci àdduna mbugal leen ci àllaaxira kon nag loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax su ko defee li ñu koy toftal ci loolu yaakaar naa way politique yi am na ñu fi nekk kon ñi ngi soññi suñu njiit ñi nga xam ne dañ ñoo jiite ci wàllu politique fañ koy tàmbaleeg mooy ñi yoroon réew mi ba toll ci di ko laajaat ak ñi nga xam ne dañoo toll ci war koo ñoom ñëpp ñi ngi leen di lay biire ci ñu gën a góor góorgóorlu taxawu askan wi taxaw ci ci yitte yi askan wi te jéem a roy bu baax njiit lu baax a baax koo xam ne ba ko yàlla joxee doole jox ko xam-xam jox ko alal jox ko ay pexe mu nab suuf mu nab suuf sépp da ko utiliser ci yoon bu baax muy ki ñu wax Zul Qarnayni bu ngeen ko royee bu ngeen royee Zul Qarnayni ca taxawaayam ba lépp dina jàpp waaye itam di soññ kilifa yooyu ci doylu njiit day doon ginnaaw bi askan wi jëlee teraanga ju toll ne kaay jiite ma kaay jiite ma ànd ak aw ñaqam jël aw carte dugal ko ci urne yi ñu ne ci ngoon gi ñu ne yaa gañe wala yaa yor nangam ñu ne kaay jël gi boobu la ñu defoon teraanga joo xam ne moo leen a fay kon nag politiciens yi ñi falu ba noppi ak ñu war a faluwaat nañ ñu dimbali ci 15 pour cent et 20 pour cent yi ñuy daggaat ci askan wi. dagg 15 pour cent projet bu nekk dagg ci 15 pour cent 20 pour cent ñu la ko yóbbul Panama di la ko yóbbul Luxembourg di la ko yóbbul Monaco ci ay pays offshore ay paradis fiscaux nga di ko nëbbu loolu kenn ku nekk war nga koo seexlu wala ñu la koy yóbbu Seychelles nga di ko fa nëbbu loolu xam ngeen li may wax bu baax kenn ku nekk war nga koo seexlu jot na itam jot na itam ñuy xoolaat bu baax di yamale ci ni ñuy tànne ñi ñuy tudde ay collaborateurs ci ñuy liggéeyal di xool compétence te bañ a xool askan wala gëm-gëm bañ a xool waaso wala gëm-gëm tey xool compétence yi ñun ñëpp ñu ànd defar réew mi ci gàttal nag Zul Qarnayni moom muy ma leen tuddoon léegi sa adlu aleykum minhu dikra moom Zul Qarnayni Zul Qarnayni inna makkannaa lahu fil ard wa aataynaahu min kulli shay'in sababa suñ borom day daf koo jox lépp jox ko nguur jox ko armée jox koy ingénieur jox ko lépp su ko neexoon du dem fenn waaye dafa jug fa atbaa sababa dafa jug ne day tourné gëstu askanam déglu leen faj seen i aajo bi nag politiciens Sénégal yii nur nañ soo dul xaar nañ ni lool tourné bi moom ñu ngi koy def ñi ngi dem Bunkiling ñu ngi dem Kédougou ñu ngi dem Rosso ñi ngi dem fu ne waaye ndax nur nañ dul xaar nañ ni nam doon defee ca tourné bi bi mu jugee di dem ñu ne fa atbaa sababa xatta ida balaga magriba shamsi wajadaha taxrubu fi ayni xamia wa wajada indaha qawman qulna ya dha alqarnayni imma an tuadib wa imma an tattaxid fihim xusna suñ boroom da koo tànnaloo ne ko fekk nga xeet woo xam ne tooñ moo fa nekk injustice moo fa nekk léegi nag ñi ngi lay déglu nga àtte wala nga baal leen mu ne ñi nga xam ne dañoo nekkut ci yoon dinaa leen teg ci dëgg du ma ci baal kenn ku tooñ dinaa ko mbugal ba noppi bàyyee ko yàlla mu mbugalaat ko loolu nag lañ soxla ci suñu nit yii fi nekk justice bu équitable justice boo xam ne day yemale waaye itam justice bu indépendante boo xam ne du am farfarloo te loolu nag pour ñu def ko mooy dañuy génne suñu loxo ci justice bi gëm li ñuy wax séparation des pouvoirs waaye justice boo xam ne bu ñuy àttee léeg-léeg am ko woote téléphone am ko nëbb du fa loolu du am justice nañu roy nañu roy Dul Qarnayni ca taxawaayam boobee. ndax atte dañoo war a atte ña deful dara ndam wax leer na nañ ni wa amma man amana wa amila saliha fa lahu jazaan al xusna wa sa naqulu lahu min amrina yusra ñi deful dara di liggéey ci réew mi tegu ci yoon jar na sax neexal leen waaye yëmut foofa ndax dafa topp li ñuy wax al axd bil asbab yàlla ko doon rek mu topp boo xoolee dañ ne summa atbaa sababa mu continué waat ginnaaw bu ñu jógee maghrib mu dem mashriq moo tax mu ne xata ida balaga batlia shamsi wajadaha tatluu ala qawmin lam najal lahum min duniha sitra di dox ba mu yàgg ci àll bi di def tournée politique am wala daawaam fekkaat ñeneen nit ñoo xam ne dara sax tiimu leen ci seen ñàkk civilisé amuñ sax ay néeg jàkkaarloo jant bi suñ borom solo ko lam ko sol kadalika wax ahad naa bi ma ladayhi xubra mu jaarat ñoom fa mu jaarat ñoom defar leen waaye itam summa atbaa sababa mu jàllaat xata ida balaxa bayna suddayni wajada min dunihima xawman laa yakaaduuna yafqahuuna qawla fekk nit ñoo xam ne yeewuñ seen i làmmiñ leerut la ñuy wax kenn xamu ko foofu nag mbokk yi fi la mbir mi dana taxawee ndax dañ koo jàmbat seen bopp ne ko yaa dal qarnayni in yaajuuja wa maajuuj mufsiduuna fi l ard fa hal najcalu laka xarjan ala an tajcala baynana wa baynahum sudda dul qarnayni ne leen bi ñu waxee dul qarnayni ne ko yaajuuj ak maajuuj ay xeet lañ yoo xam ne dañ fi ñëw di rey di sàcc di violer di def lépp dal lu dem ci yàq dañ laa bëgg a fay fay la ngir nga doxalee suñu diggante ñoom ab mur boo xam ne dootuñu mën a jàll ñëw ci ñoom lu mu leen wax loolu am solo lool te néew lool ci njiiti tey nag maa makkani fiihi rabbi xayrun fa a'inuuni li ma yàlla jox ak teraanga ja ngeen ma joxoon ne ma gaa yi jiite ma ba ma am lu ne am caisse noire am lu ne seexlu naa di jëlaat ci yéen dara yéen daal indi leen ma compétence yi rek ak main d'oeuvre bi mu ànd ak yéen liggéey kon nag mbokk yi nañ politiciens yi nañ bàyyi loolu bu kon xam naa waxtu wi dañu xam na dañ koy tëjee ñaari mbir rek ñu ngi jégalu bu baax a baax ba ci njëkk mooy dañuy yóbbante ci président de la république xaw ma na ko fi toogal ak kilifay dëkk bi kilifay dëkk bi nag ñu leen fi toogal bari li ma leen fàttali mooy maa ngi leen wax ne Touba Qahira gii ci Touba la bokk ci Sénégal la ki ko sanc di sëtu Serigne Touba ci nekk ko Serigne Fallou te amul 38 ans sanc ko ci anam yu méttee méttee méttee ànd ak courage ànd ak sajaa bu mag a mag de 38 ans nga sanc ab dëkk bu toll nii biñ demee ba àddina moderne nga def fa li nga fa def ñëpp teg seen bët njàmbaar googu ku ko def jar naa dem na jukkal ku su koo fàtte ba àgg ci sax quartier ba mu dëkkee sanc ko lampe sax bu màggal jot dañ koy fay. lampi xayra yi dem ci corniche bi yëpp dañ koy fay amuñu ndox gone yi fi nekk amuñu xëy xayra nag ci dëkk bi la bokk ci réew mi la bokk nañ jox suñu wàll njukkal li nag njukkal li ñuy laaj ñu njukkal ko suñu moodu du suñu intérêt bopp amul kenn ci membre daayira bi ku ciy laaj ab passeport wala tracteur wala lu mën a doon déedéet liñ ñu war a defar lépp nañ ko delloo ci askan bi sëriñ Moodu li mu defoon tàmbali ko ci ay liggéey ci ay jàngukaay ak ci ay centre de santé nañ fa dem saytul ko yokkal ñu ko defaraatal ñu ko daara moderne yi joxe ñu defal ñu bu mag a mag fii ci Touba Xaayar ak Tcham yabal wala boo nee àgg ci dëkk Serigne Modou yëpp Bouchra Tawfeex Touba Doli loolu daal lañuy ñuy yóbbante président de république di ko yóbbante mboolem politicien bu fi toog la ca des may mujjee mooy taalibe yi Xaayara yëpp ak li topp ci Xaayara Xaayara nag du Xaayara kese Tcham yabal ci la bokk. bushra ci la bokk tawfiq ci la bokk yaman ci la bokk tubaab ci la bokk faneen ak faneen ak ñi tuddoo xayra li ma leen ñaan daal ci du daayira bi mooy ngeen xippi seen i bët di xool nu waaye jàppe xaayira ngeen jàppe ko noonu te am ci fulla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa